gis ndaje bi du dara lu dul lii ñu ngi koy def presque léegi mat na ñetti at ñu commencé woon ko 2019 fin d' année 2019 muy commencé également ci mouvement bi ñu créé woon muy mouvement ay jàngalekat yoo xamante ni seen soxla mooy école bu jëm kanam ndax ñun école la ñu xam jàngale la ñu xam xamuñu leen ñu daaree nag ci li ñuy jàngoon PSE PSE tey mooy référentiel bi nga xamante ni politique yëpp ci moom lañ koy teg ci lañu teg seen tànk ñu gis ni ci PSE boobu am na ci ay euh, ngëneel yoo xam ne enseignants yi am nañ ko te xamuñu ko ñu ne nag lii dañ koy fësal suñuy jàngale jàngalekat ci loolu muy ay formation ci si suñu tànk tubéy ci njàng mi ci njàngale mi mais ñu gis ne am na lu des li des mooy cadre école yi boo duggee ci école bare na école yooyu dugg yoo xamante ni fépp naaj la amul garab école bi souvent duy rafet ndax école publique la moyen toujours du am ñu ne nag fii la ñu war a léegi teg suñu tànk teg suñu tànk muy ñu améliorer cadre école yi fexe di jëmbat ay garab ci biir école yi ndax xale yi seen nekkin ci école yi di mën a yomb mais aussi xale yi seen bopp ñu war leen yaraat dañu ne Sénégal émergent Sénégal émergent nag dañoo nekk di tabax sénégalais bu bees ñu xalaat ni sénégalais bu bees boobu ci xale lay commencé te comme yàlla def la ñu jagalee yaru xale yi ñu ni foofu nañ liggéey niñ ciy liggéeyee mooy gis nañu léegi ñi ngi wax cet ñu ne xale yi si boppam ñoo war a porter loolu ñiy dem ci école yi li ñu def nii xale yi seen bopp tey ñoom ñooy nettoyer ñu yaakaar ne bu dee weer bu nekk ñu jël benn bis boo xamante ne xale yi ñoom ñooy nettoyer bu demee ba ci kanam ñu tirima bu dee ci école yi ndaw ndawaan yi ñu ne ñooñu ñu leen baleloo ndax feebar poussière kan xamul nañuy for yi ñuy sànni ndax dañuy sànni bu ñu naanee ndox sànni sachet yi bu ñu lekkee sànni këyit yi ñu ne loolu du lu rafet parce que ci kër yi jànq yee koy def kon nag nañ ko jàngal xale yi ci école yi xëy na xale bu tàmm di toujours di jël di sànni ci poubelle bu demee seen kër dina ko def bu demee ci koñ bi dina ko def donc loolu muy suñu participation ñun ci sénégali bu bees bi nga xam ne ñu ngi koy bëgg a tabax ñu yaakaar nag ni que buñ koy def xëy na modeste moo ko commencé mais suñu mbébét mooy école yëpp di ko def ndax ñun jàngale dañuy naan euh, pédagogie par l'exemple mooy li ngay jàngale nga njëkk ca wane ko ñu yaakaar ni suñ koy def suñu naataangoo yi nga xam ne chef d'établissement école yi un peu partout dinañ ci topp te tey ñu mën a wax alhamdulilah ndax dem nañu ba dégg président ci boppam joxe commande boobu ne nañu installé PSE vert ci biir école yi mais également commande hygiène bi mooy école propre école verte bi nga xamante ni ñun moom la ñu tuddee suñu projet voilà man la docteur Diomaye Dieng nekk directeur de la propreté et de l'hygiène publique euh, ci ministère euh, de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique bi fekk ci mbootaay jàngalekat yi nga xam ne dañoo la woon ngir ñu waxtaan ci lépp yoo xam ne ci cër ak cell da nga ñëwee lan nga ci wax ak nan ko gisee waaw tey dañoo ñëw école euh, Joseph Gomis pour accompagner euh, initiative bi nga xamante ne mouvement des enseignants pour euh, le Séné Sénégal émergent ñoom ñoo ko organisé mu consiste nag ñëw xool école bi nan la bindoo pour ñu mun leen accompagner mooy corps euh, professoral beeg mooy élèves yi pour que ñu mën a am benn cadre de vie maanaam espace bi ñuy évoluer mun a doon espace bu yànj bu yànj d'abord bu set parce que gis nañ ne ñu ngi def effort ga mais war nañ leen ci mën a accompagner bu yànji également parce que war na am ay garab ba élèves yi su ñu génnee classe yi ñu mun a am fu ñu toog mais aussi loolu dina permettre école bi mu gën a rafet gën a permettre aussi enseignants yu nekk dans de bonnes conditions. loolu nag dafa bokk ci suñu mission ñun ministère en charge de l'hygiène publique parce que ñun ñoo yor lépp lu jëm ci cadre de vie loolu nag soo ko naree def da wut ay partenaires yoo xamante ne xarañ nañ ci terrain bi nga ànd ak ñoom pour que liggéey boobu mun a sotti. moo tax ñu ànd ak waa MODES ànd ak ñeneen partenaire fekk ci établissement bi le corps professoral ak IF bi aussi pour mën a accompagner véritablement initiative yi nga xamante ne élèves yaa ngi koy jël ci école bi du yem fii certes parce que dinañ ci gën a liggéey ak yeneen établissement gën a reproduire aussi modèle bi ñu am fii nii parce que yàgg nañ ci liggéey ñu nag waa MODES yàgg nañ ci liggéey mais instant yi liggéey bi dafa war a gën a bar parce que président de la république dafa joxe instruction depuis le 18 novembre 2020 jël PSE boobu nga xamante ne programme la ñu implémenté ko maanaam ñu appliqué ko ci biir école yi léegi nag loolu bi mu amee suñu ministère yi def ay réunion ministère bi yor environnement bi yor hygiène publique bi yor éducation ñu jox ñu instruction ñun en tant que agent pour ñu wàcc sur le terrain dem accompagner initiative yi nga xamante ne ñu ngi doon am ci école yi te loolu dina permettre école yi nga xamante ne amoon nañ déjà benn dynamique ñu gën leen lancer mais dina permettre aussi ñi nga xamante ne ñëwaguñu ñu roy ci ñooñu ba Sénégal mun a am ay écoles yu rafet ay écoles yoo xamante ne cadre de bi dina baax te loolu mooy garantir euh, réussite élèves yi mooy garantir aussi seen wérgu yaram yaakaar naa côté boobu ñu ngi ciy féliciter initiateurs yi di leen di wax nag ne ministère bi dina taxaw seen côté pour accompagner leen. parce que fii ma nekk nii dinañ leen jox ay matériel de nettoiement mooy ay brouette ay pelle ay râteau pour que initiative bu nga xamante ne am nañ ko ci biir école bi proviseur euh, directrice bi mun a liggéey ak enseignants ak élèves yi pour ñuy organiser ay set setal régulièrement loolu dinañ ko def dinañ leen accompagner aussi pour ñu mettre en place benn club benn club scolaire de salibrité nga xamante ne dina permettre élèves yi ñu jël euh, mbir mi ak seen loxo pour pouvoir euh, véritablement veiller Euh, à ce que école bi set yaakaar naa loolu suñ ko tegee en place dina doon benn mécanisme de suivi léegi ñun duñ leen bàyyi parce que dinañ ñëw aussi de temps en temps accompagner leen defal leen ay formation ci programme zéro déchet mais dinañ ñëw aussi xool lan lañ manqué ñu jëm leen ci jàppale beneen appui bi mooy dinañ xool euh, ci cadre PSE vert boobu nga xamante ne président daf ñu wax ñu euh, euh, samp ko ci biir école yi nan la ñuy def ba yokkal leen garab nan la ñuy def ba yokkal leen ay yeneen espèces yoo xamante na tax école bi gën gën a verte dina tax aussi école bi gën a set te yaakaar naa loolu su amee rek ñun parents d'élèves ñun ñi nga xamante ne véritablement suñu xale yi fii la ñuy nekk seen xel gën a dal ñun aussi suñu xel dal pour ñu mun a am ndam dal di réussir seen i njàng.